nga xamne ño fi daan seen doole ngir yàlla karantaba ak ñi ak ñom nek ci biti di yónnee seen am am lum tuti-tuti ngeen gis ko ni ñu tek ko pour joxe ko fi ñi doore moy sant yalla wax ne lii mu ngi bok ci barke wéru koor bu wéru koor di ñew ñu bari ragal ne mbir yi dana jafé yalla di indi yombal ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti ak ñi nekk ci biir ñu bàyyi suñu xel bu baax ci jaamu yàlla weer wi weeri def lu baax la def lu baax moom at mi yëpp nga ko war a def waaye rawati nag ci weer wi ñi nga xam ne ñooy yónnee seen tuut ngir di ko def ci yoonu yàlla mel ni karantaba ak yeneen mbooloo yi nga xam ne ñu ngi fi di doomi réew mi gis ne liñ am dañ ko war a bokk ak seen mbokk yi ñi yónnee ko jox ko loxo yoo xam ne loxo yu am kóllëre la loxo yu wóor la ñu génnee ko nii on nit ñi ne kaay leen jël ko wax dëgg yàlla loolu itam lu am solo la. danay wax toujours ne ñi bugg a def lu baax bari nañ waaye gis nag ko óolu ku mel nii ku la koy defalee nii wax dëgg yàlla xawoon naa doon jafe-jafe waaye ñu ngi sant yàlla bu baax nag biñ dooree gis mbooloo mi nga xam ne taxaw na te di ko defee nii ko yàlla subhaana wa taala buggee. ndax lii kóllëre la boo xam ne dañ ko teg ci suñ loxo ñu war koy eggaleel ñeneen ñi foog naa nag kóllëre rawut lii bu fekkoon dañ ko def ci biir di génnee par tuuti tuuti doo xam lu mu doon waaye seer ko nii nag wax dëgg yàlla lu am solo la te maa ngi xiirtal ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi ak ñu nekk ci biti yëpp te gis lii na jàpp seen xol bañ def si seen loxo incha allah comme ni ko Cheikh Omar waxee beneen yoon bu buñ koy defati ñu tëj sax mbedd mi fii nga xam ne day doon lu bëree baree bëri incha allah ñëpp mun cee jot wala ñu bëri jot ci yàlla su borom subhaana wa taala moo ñu ko sant nañ ko def ngir yàlla yëg ne ñu ngi def santaane yàlla yàlla moo ne loo leen am ngeen génnee joxe ci xataa ñi ñàkk sax ñi ñàkk yàlla daf leen wax ne comme seen ñàkkaay ñàkk ngeen waaye ah, ñàkkul loo leen am nekkul ne amu leen dara li ngeen am li mu tuuti tuuti yéen itam génne leen ngeen jox joxe ci wa man koo xam ne yàlla lu tuuti la ko jox sax na ci génne waaw bu ko am tuuti yàlla di ko wax mu joxe yow mi am leneen nag lu ëpp nag nag nga war a def kon loolu itam nañ ko bàyyi xel bu baax ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm euh, machaayix yi nga xam ne ñoo fi toog ak ñun ni imaam Abdallah imaam euh, Ibrahim Diédhiou ak docteur Abdoul Qadir imaam Ali Abdoul euh, Amin Thiam ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo jàppalanteeg ñoom. ak Cheikh Bachir mi nga xam ne wax dëgg yàlla tam euh, lislaam fu baatam egg lu bari am na ca doole taxaw na ci taxawaay bu rafet a rafet a rafet yegg nañ ne lii bu sobee yàlla dina egg fi nga xam ne foofu lañ ko bugg dinañ ko tasaare ñaax ñeneen ñi tam nga xam ne dinañ ci mën a ñëw euh, bokk def ci seen doole ñu leen di gërëm euh, dañ xër rek pour ñu ñëw toog fii wax waaye ñoom doy nañ li ñu wax doy na sëkk waa ñu ngi leen di gërëm nag ci boole gi ñu ci boole óolu gi ñu ci óol óolu woo ñu ci xajal ñu ci ñun ñëpp ñu bokk ci di ci liggéey di ci def xalaat incha allah bu ñu amee leneen itam loo xam ne moom lañ ci mën a def bu soobee yàlla ñun ñëpp war nañ ko bokk ñu puus ci def ci ba yegg ne lu baax lii mu ngi xew ci réew mi ñu baax ñii ñu ngi dund ci biir réew mi yal na leen yàlla yokk yàlla nangu wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam baraka baake docteur alama alay joñi mal barakallahu fi dukro nga tentu baake nga jey baake ala alfaya be deme ana la maqamo ay kaf mol fe membe ko karanta ba do ku nyol ay mol lendi to fana ala ma ala adwal jaba me be ke ciow ay faal ye ko fana mol be la firim betel amo siyat bari be jumala jele be la la be jikilala kala bulo kon